nag am na solo waxtaan bi ñu dem ci actualité actualité bi nag locale yi la locale yi tension yu commencé na ba 4 mois des élections wax yi bëri na xeex bi démb rek am na lu si xam jot a xew. Euh, mhm. nan nga koy commenté. xeex yi moom baaxul ci dara. Mhm. violence baaxul ci dara. ca ni ñu koy faral di waxee ah. ca nag lu wér la man ba ñuy nekk tout tànk lañu daan dégg suñu mag ku ci dee yaay perte. ñi ci mas a dee ñëpp daanaka ñoo perte seen i njaboot gisatuñu kenn gisatuñu daa ñëw di leen def ay discours euh, def si seen làmmiñ ay lem. di ko tàyyu ba ca marché ba di wax jigéen kese ku ci falu fàtte ña ko faloon ku falawgul di sànni xeer ngir falu moi je pense que il faut que ñu tëggaat anam yi défini politique Sénégal que discours yi li muy ëmb mu ëmb suñuy jikko te li ñuy woote ñu nduru ko ci suñuy valeur suñuy maam et cetera mais nit mënoo ne diw jiite ma ca kooku yow gisoo dara ci moom ak sénégalais sénégalais bu baax ba xamul saaga xamul def lu bon xamul jamaate paaka xamul reye kon faut pas s'identifier à ce type de personne nit nag aussi da ngay da ngay da ngay fonk sa bopp man nga jiite ma ci parti jiite ma ci entreprise jiite ma ci jumaa ja mais terewul nga nekk sama nawle su ma gisee lenn ci doxalin boo xam ne yow nawloo ma rek duma ma la nawlu waaw àndum nawle dafa baax ci loo gis da ngay wax teg ma wax teg ñu xalaat càmbar xool dëgg génn d'ailleurs c'est loolu mooy dialectique sax réel ci ci wàllu philosophie noonu lañ ko daa waxee mm-hmm. donc foo gis rek xalaat yu bari mooy génne lumière mais munoo yow say xalaat tegu ca kaw man nga suufeel samay xalaat. est-ce que leader politique yi tamit amuñu benn responsabilité di sensibiliser seen militant yi ci ñu bàyyi violence bi yeeg yooyu est-ce que. waaw mais yi du militants yi du non non mais il pas donner à ces leaders politiques place yu nu amul. nekkunu nit ba ëpp la ak nité. leader politique nekkul côté bi ay mala nekk côté bële bañ naan nañ sensibiliser wala nañ leen wax ay nit lañu comme yow comme man yow waroo xaar ñu sensibiliser la yow yaa war am sa nité ba pare soo ko ñëw ci ñoom ngeen bokk benn idéal bi pour mun caa dox dem mooy nawle gi may wax nit da ngay def sa bokk ak nawle vis-à-vis des autres ak ku mu mën a doon cest dire gis nga fonk sa bopp gi foofu la tàmbalee man lu tax man nangu yow nga ñëw toilette ba jekk toog ci fauteuil bi man mooy dem di ju di di jeex ay xeer di la sànnil ay nit maanaam daal man loolu ay sabab man féetewoo sànnikatu xeer ci àddina man amu ma ambition yeneen man man sama yaay ba mu may jur ak sama papa di ma defal éducation benn yóbbu école amul benn yéene bi ci man lu may nekk raykatu nit sànnikatu xeer saagakat saagakat boo ko nangoo rek ça veut dire que yow yow yaa bëggut a tekki dara. pour yow lan mooy rôle maire. rôle kan moo war a xëccu maire. maire moom comme leneen Sénégal ñun dañuy gis ci poste ndomba tànk mooy daraja foofu lañ faussé jeu bi bis bu ñu demee ba xam ni. ndomba tànk responsabilité la comme ni ngay nekkee imam ci jumaa ëllëg ñu lay laaj sa responsabilité ni ñu dañuy teyaat dootoo gis sax kuy taxaw naan samp naa sama ndënd di nga gis bu samp ndënd jotee bu boobaa nit ñi dañuy daw sax ñu leen di ñu leen di wëri mais kenn du ko xëccu ndax xam responsabilité bi ci ne ak sa diggante ak sa borom lañ lay laaj yi ëllëg bu fekkee yow da nga jàpp rek ne yoon la pour tekki yoon la pour am daraja yoon la pour xëy na euh, euh, sa maam ya kenn xamul woon ak sa tur yi nga xam ne kenn xamu ko woon ñu jibal ko ci penc ma di la tëggali tamaak yooyu amee xayrul mais lu ci waaye mën a def it ëllëg daal mu ngi xaar ñëpp ca kenn du ci rëcc